ndax booba léegi fii rekk lañuy daje ñun ay mag lañu boo xoolee fii ci mbootaay mi doo gis kenn ku yor karaw bu ñuul ñépp karaw yu weex la yor état bi moo ñu amel xaalis boobu léegi ñu ngi daw ci gannaawam ñii def la sourde oreille état bi fi jógee diggee nañu mu dig ñu dig yu tooy xepp finalement dara amut bii ñëw nag ñii dañoo toog rek ñu bind leen demande d'audience benn ci autorité yi recevoir ñu bind moom it pour jàppale ñu mu ne dans un mois ñu xaar réponse bi mais jusqu'à présent rien ngeen baal ñu seeni Diop bu SIAS ak am Amdi Moustapha Ngom bu Sotrac dinañ dugg ci détails yi. mbir mi aussi dajale ñu fi naam yàgg nañu fi dajale mais yaakaar naa ni fi ñu tollu tembe ñun ñëpp dañu war a takkuwaat parce dara mayul fii kenn. ci facilité xeex rek mooy may nit dara nit nag boo dee xeex ci dëgg ci sa àq ak sa yelleef waroo ci ragal dara waroo ci dellu ginnaaw parce que ñii yor réew mi tey muy le président Diomaye ak le le premier ministre Ousmane Sonko xeex moo leen jox réew mais raay raayal joxu leen réew kon nag ñun suñu alal àq la ak yelleef gouvernement bi génn dañ ko voté muy un budget de treize milliards biñ ko wotee ba pare ba approuvé ko à l'Assemblée nationale yaakaar naa exécution moo ci desoon le ministre l'ancien ministre du des finances Mamadou Moustapha Ba recevoir nañ ñun ñëpp ñu toog ak le président de l'agence judiciaire de l'État ba ñu toogee ñu harmoniser position yi ñun semaine prochaine ñu procéder au paiement l'argent est disponible au niveau de l'agence judiciaire de l'État waaw mais ñun une semaine ñu jógee ci l'agent judiciaire de l'État naan day xaar ordre ministre des finance ministre des finances naan day dem proposition à la présidence mais lépp ay tappale kese la ak ay wor wor googu ñun wor nag yàlla wor na leen ñun nag ba ñu taxawee ci tànk wor ñu dañ leen fa bàyyi ñun itam taxaw ci tànku xeex ak ñoom ba yàlla jox gouvernement bi muy Diomaye ak Sonko Diomaye nag la président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko dañ leen di interpeller état continuité la dañoo jëm ci ay tabaski fii mu ne nii tey dañoo woote assemblée générale pour informer nit ñi pour jël ay position dañuy dem ci combat ba ñu fay suñu alal amatul dara loo xam dañ koy maslante parce que bu ñu jógee fii tey jii ci assemblée générale pour dem ñibbi non dañ fi jógee pour peaufiner benn stratégie doon nañu dem ci ay de la faim buñ ko dee def cette fois ci dootu ñetti nit ak ñeenti nit ñëpp la invité ñu ñëw toog ak suñuy njaboot ba ñuy fay suñu alal ñëpp dem ñibbi seen kër buñ ko toppee di raay raayal ak di maslaa du ñu am dara dara duñ ko am kon il faut nit ñi gëm seen bopp bu ñu wootee nan leen xeex nañu ñëw ñu taxaw bañ a raay raayal affaire bañ a maslaa affaire bi ñu ngi interpellé nag le président jomaay bien que état continuité la ak le premier ministre dégg nañ lu ñu wax ci feetu premier mai bi bëgg nañu nag loolu ñu wax ñu concrétiser ko te ndax dañoo ñëw pour jubanti ak jubal kon yi fi jubul woon yëpp nañ ko jubanti lépp loo xam ne àq la ak yelleef liggéeykat moom ko nañ ko ko jox ñoom c'est des syndicalistes xam nañu le monde du travail am na loo xam ne buñ koy wax dañ koy wax rek mais ñoon ko gën a xam ndax suñu situation xamoon nañ ko balaa ñuy jël accéder au pouvoir yàlla def na accéder nañu au pouvoir on les interpelle vraiment ñu wooñu ñu seet nañu ñu xaalis travailleurs yi jàmm am bu loolu amul du ñu bàyyi de dañuy combat loolu moom béy boo kenn ku ne wàcc ko képp ku ragal nag ci loolu jarul ngay ñëwaat fii waa ci loolu daal la lu jëm gaa yi ñu bañ ko maslante bañ ko raay raayal muy góor muy jigéen lépp lu état be dige woon ñun dem na nekkul kii fi ne def ko war a nekkal parce que budget la bu ñu wote ba pare fu ñu ko dugal nañ ko leeral agie xaalis baa ngi woon foofu pour les travailleurs kon ñu on interpelle le président le premier ministre ñu lax mbit foofu mu leer xaalis baa ngi foofu nañ fay li ñu seen xaalis mais mënuñu ko watee dugal ko foofu ay tappalekat jël ko dugal ko ci leneen comme li ma waxoon laay waxaat defaat ay détournement d'objectif ñu toog leen seetaan ba léegi te ñu ngi fii ci réew mi muy Mamadou Moustapha Ba ak l'ancien directeur de de de l'AGE comment il s'appelle encore Bokar Moussa il est là moom moo toog ak ñun keroog bi sanu joon demee rencontré ko mu ni ko ah non mais il faut que c'est un secret d'État ban secret d'État un budget voté pour les travailleurs voté par qui par l'État du Sénégal l'Assemblée nationale lan lay représenter la population sénégalaise kon ñun ñoo ko moom nañ ñu ko jox nañ ñu ko jox jàmm am vraiment discours bu gudd bi amatul njëriñ léegi xeex moo am solo taxaw taxawaay bu mat sëkk balaa ñuy tabaski ñu fay suñu alal. man kàddu bi may jël dama koy jël au nom de l'ensemble des ex-agents de la SOTRAC de la SIAS et de Aman Sénégal d'abord je vais vous interpeller vous qui êtes à la tête de ces organisations ñaan loo wuñ leen raam loo wuñ leen wut leen ñu leen loo leneen xamal la leen laaj lañ leen leen laaj kàddu yi ngeen génn fii mu dëggal ngeen dëggal ko ci jëf ba ñu jot ñu suñu xaalis leneen loo leen def te du loolu yéen a def li leen neex mais du ñun nii te nag boo leen demee ba seen place bii ngeen toog seen place bii ngeen toog ba ñu am yaakaar ci yéen jiital leen motatu leen ko doot ñu leen xaar doot ñu leen déglu ñu ñooy génn taxawal suñu bopp may wax ne beneen bi moom mooy le slogan du nouveau régime dañu wax jub jubal jubbanti ci loolu laay ñëw pour wax ak ñoom di jubal di jubbanti soo demee ba wax ne dangay ngay sol mbubu jubal ak jubbanti dafay fekk nga jub day fekk nga jub parce que ku jubul doo jubal doo jubbanti may wax na nag ñun la ñuy jubbantil ñun la ñuy jubal ñoom bu ñu wanee ne slogan boobu gëm nañ ko te dëgg la nañ ñu wan ne ñoom dañu jub te wan ñu dañu jub ma mooy ñu fay ñu sunu xaalis buñ ñu fayu sunu xaalis suñ ñu woonee ne dañoo jub wala ñu koy yuuxu di ko wax dañuy wax lu leen neex mais ñun duñu gëm ne ñoom ñu jub lañu leneen li nga xam ne moom moo dëgg te mooy dëgg te moo ne dafa ñaaw ay père de famille ay ay sexagénaire ñëw ay jigéen ay njirim ay leneen saa yu ñu buggee jot seen xaalis rek grève de la faim saa ñu ko bëgg a jot rek grève de la faim mais ñoom ñoo wax rupture nañ ñu fay te duñu grève de la faim mais su fekkee ne dañoo grève de la faim ñu fay ñu ñoom ak ñi fi nekkoon ñoo yem li ñu bëgg mooy nous les interpellons afin qu'ils puissent nous payer notre argent te duñu dugg ci jàkk ji pour di def grève de la fin buñ ñu fayul na te fayuñu am di nee na ñetti fan déglu nañ leen ñetti fan mais au-delà de ces trois jours là yéen ñi ñëpp commencé ko ci ñun dama ne j'avais prié dama ñaanoon yàlla pour aujourd'hui ce jour si ñu refuser ñu suñu auto suñu demande d'autorisation parce que ñu bañaloon ñu ko dañuy génn ñu nangul ñu ko dañuy génn su ñu amee seen ay lacrymogène nu sommes prêts à faire face ils n'ont qu'à venir nous nous nous bombarder de lacrymogène mais nu ferons face pour entrer dans notre but duñu dellu ginnaaw tey duñu génn dellu ginnaaw suba te duñ dellu ginnaaw gannaaw suba salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh